mbokku internet yu Wassare Lamb ñoo leen nuyu baax a baax di leen ziar di am kontaan ak euh, mbégte bu baax a baax kon ñu koy defee chaque jour di lundi jusqu'au samedi j'espère que passé ngeen weekend bu neex tey nag ñoo ngi tombé lundi 12 12 décembre 2022 euh, lu gën a fës ci yéenekaay bi du sunu lamb le quotidien des années sénégalaises supplément des stades le quotidien du sport contre Boy Niang 2 le 1er janvier 2023 Balla Gaye 2 face à trois équations Vainqueur à Sadioga et Fatick Sosokho et Modou Diam Terry se signalent Tapha Mbeur Gamou 2 Bakary Sagna le 24 décembre sera une journée exceptionnelle face à face très chaude vendredi dernier Sokh bu Ndaw et Talfa se l'enfer journée de Bawal production samedi Aboy Espédi Thiatou Montagne en 55 secondes Boy n'a plus vu que du feu, n'a vu que du feu. Euh, duma naa ko daan naa ko loolu mooy kii di Zambala kii di Zambala utilisé looloo gën fës si yéen i kaay bii di sunu laaw may wax saa di baax a baax Bassirou Diouf salaamaaleykum. Mamadou Rasoul. waaw. maa lay ziar. daal di ziar. naka suba gi. sant yàlla ba alhamdulilah. naka lënd bi lépp nice. ah mu ngi cool bu baax a baax. Ah, macha jëf. maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu mbokki internetu wasaare làmb yëpp. di jaajëfal ñëpp ci ànd bi ñuy ànd ak ñun di ñu bàyyi xel. ñu dellu siwaat ci seen revue des titres bi nga xam ne fii lañ koy amalee saa su nekk. di leen di samedi. comme ni nga ko waxee rek di jukki li gën fës ci làmb di leen ko dëgtal. loolu lañ fa yéenee def tey am benn week boo xam ne génn nañu ko ci lutte sans frappe lutte avec frappe ci ñaari bés samedi ak dimance ci arène nationale ak démb aussi lutte simple ci biir territoire national bi yëpp loolu la fa fas euh, jukki dëgtal ko mbokki internet yëpp. mais balaa boobu dañuy ñëw si lamb yoo xam ne ñoom bi ñëwaguñ maanaam bii bu njëkk mooy Tapha Mbeur Gamou 2 Bakary Sagna et Yaram Ar Evans. le 24 décembre sera une journée exceptionnelle pour son baptême de feu en lutte avec frappe. La structure Yaram Art Events organise une affiche alléchante le samedi 24 décembre prochain, Inch'Allah, à l'arène nationale de Pékin. À quelques jours de leur premier grand rendez-vous, le coordinateur de la structure Bagel Sanya a accepté pour Sunulam de se projeter sur ce combat entre Kamugay 2 et Tapha Mbeur qui fait saliver. waaw bile combat waa Yaram Art Production ñoom ñoo ko taxawal euh, Bakary Sagna bu yaaram aar moom mooy wax ci biir journal bi di xam ne ne yaaram Art Events euh, benn structure la boo xamante ne nii ci wàllu événementiel lay yëngu euh, lépp lu jëm ci wàllu événementiel Yaram aar Production da ciy yëngu naka noonu ci ci la am ay collaborateurs partout. ci biir réew meeg ci biti réew ak fépp foo mën di dem am na ñoo xam ne nii ñu nga ca di bay seen waar fii ci senegal nag dañ ciy tudd ku ci mel ni laat Diop tudd ci ci mel ni jéego tudd ci ci mel ni Ama ñooñu seen i collaborateur lañu am nañ ay collaborateur du Ama Baldé de am nañ ay collaborateur foofee ca Angleterre am ca Paris am ca Gambie fépp foo mën di dem daal da nga fekk ay collaborateurs yu Yaram Art Production ñoom nag làmb ji dafa nekk comme euh, passion ci ñoom ay amateurs lañ d'abord di suivre làmb bëgg làmb loolu bokk na ci li leen dugal ci làmb ñu gis ne daal euh, sport la boo xamante ne nii war nañ cee dugal seen loxo war nañ cee taxaw ndax man jour bi combat bi taxawee laa ne ki taxawal diggante Tapha Mbeur ak Gàmmu Gueye 2 bu nekkul amateur it am na maamu amateur. <laughs> am na maamu amateur buy <laughs> buy suivre combat yi naan ko doom sama taxawalal lii. <laughs> ci lañ taxawal bile combat nag mu nekk combat boo xam ne euh, léegi mu ñëw le 24 décembre la le 12 lañ nekk tey 12 jours moo ci des. Euh, ñaari bëri nag bëgg nañoo jëflante bëgg nañoo laalante ñoom ñaar dalante ñoom ñaar bu ko defee ku ci nekk la nga andi wala ku ci nekk la nga yor sa moroom xam ko en tout cas amateurs yëpp ñu ngi xaar bile combat Gamou Gueye 2 mu ngi nekkoon ci benn dynamique bu am solo euh, ci la perte combat am ak soq. soq bu mag waaw kii di eh, Tafa Mbër moom aussi mu ngi daan benn xale boo xam ne nii avenir la ci laa muy liis njaago kon kii dafa def exploit kii ñu freiné ko ci combat boo xamante ne nii eh, mën naa ne eh, passe maam la woon léegi nag ñaari bëri ñoo war a jàkkaarloo le 24 décembre daal di jëflante kii ci defet la jóge kii ci victoire la jóge qui sera le vainqueur rendez-vous le 24 décembre incha allah rabi. Hmm. làmb Fass Ndakaaru ak fukki penc ñaar laay woo si sama combat bi ak Ama Baldé ak Baara Bukki ku ko wax nag mooy kii di boo Ndakaaru aux zones penc mi conseil libre qui se joignent à mois pour m'épauler dans combat dans le combat contre Ama Baldé alors Baara Bukki mooy bàkku waaw baara bukki bukki ah. sa kër te xamoo <laughs> ah, seen yow ah. seen yéeme nga de loolu de xaw ma ko woon man ca mbaara bukki ba rek laa doon yem waaw <laughs> mën naa mën naa koo téye ci mbaara bukki mbaara bukki mbaara bukki ba suuru combat ba <laughs> du ma xam li ci topp ah bukki xam sa kër te xamoo këram jinne xaw jinne xam sa kër te xamoo këram. déet boo nee mbaara bukki kay bukki nga war a wax. waaw bukki munoo mbaara bukki ba pare dem ci jinne. kon bukki la. yooyu it saa daa mel da ngay làmbatu de. <laughs> voilà contre Boy Niang 2 et janvier 2023 Balla de lutte Balla Gaye va se mesurer à Boy Niang 2 écurie de lutte Boy Niang le 1er janvier 2023 à l'arène de Pikine inchallah Ce sera le, 10, le dixième incursion du fils de Doubelès à Pékin, un combat capital pour le Lion de Guédiawaye qui vise le record de Boy Kairé. Balaguer 2 face à trois équations. combat bi su bëri boobu dafa am ñetti équation yoo xam ne moo nekk ci kanamu Balla Gaye 2 loolu la journal bi xam ne benn bi ci njëkk. mooy mu sauver honneuru la famille Sakho mm-hmm. ginnaaw ba fa Boy Niang duggee daan Sa le 11 mars 2018 euh, Boy Niang 2 dafa daan Sa Thiès Balla war a jël revanche Sa Thiès wala wala mu war a sauver honneur la famille Sakho muy première équation bi deuxième bi mooy dix fois ngi nii Balla Gaye di dugg Pikine am na fa huit victoire am na fa deux défaites euh, mu war a nekk no astafurlah am na fa euh, dix vict dix combats sept victoire signé une huitième victoire à Pikine loolu la bëgg huitième victoire ca Pikine moom la bëgg ci combat bi nga xam ne ni moom lay tase ak euh, gone googee di Boy Niang 2 léegi nag. kon ak géejawaay gi Balla Gaye sept victoire la fa am deux ci écurie euh, ci biir Pikine euh, ci mbër yi nga xam ne nii ñoom la fa daan mën nañ caa lim ku ci mel ni Samba Lawbe ku ci mel ni Bathie Seras ku ci mel ni booy Sey ku ci mel ni kolifay ko ci mel ni Tyson Junior ku ci mel ni Baboy ku ci mel ni Mohamed Ndao Tyson mais ndam Eumeu moo ko fa daan ñaari yoon mais na Eumeu Sène moo ko fa daan ñaari yoon donc huitième victoire am lay wuti biir pikin beneen équation bi mooy mu rapproché wu record Boy Kayre vingt-deux la am ci carrière am ci kanamu Tyson Baboy Yekini Modou Lo Tapha Tine Gris Bordeaux euh, Balla Gaye 2 dafa am occasion yokk nombre de succès yi nga xam ne am na ko de 22 à vingt 23 mais nag pour mu arriver ci loolu faw mu jaar ci kaw Boy Niang 2 faaw mu daan Boy Niang 2 daan Boy Niang 2 nag. loolooy tax mu rapproché ki nga xamante ni moom mooy suñu pap booy Kayre bi nga xam ne mu ngi toll ci vingt six victoire bi muy bàyyi làmp kon loolu ay défi la yoo xam ne wala ay équation la yoo xam ne ni journal bi jàpp na ne moo nekk tey ci kaw ba Balla Gaye parce que Boy Kayre moo ngi toll ci vingt six victoire. waaw Balla Gaye amagum na vingt deux. kon def hmm. moo tax ñu daal di tuddee le building machine note mooy Boy Kayre. Mhm. bu ñu paree foofu face à face très chaud vendredi dernier euh, à un ultime face à face avant leurs affiches avant leurs affrontements de ce samedi décembre 2022 Talfa Dodorat et Sokh bu ndaw Falaye Baldé se sont promis d'en faire Talfa et Sokh bu ndaw se promettent l'enfer enfer enfer bi Talfa di promettre adversaire am mooy dinaa la duma ba noppi soog laa daan loolu mooy enfer bi je vais le taba avant de te terrasser ah. waaw ñaari teey moom dina ci jot dina ko tabase dina ko terrasser waaw mu noonu soq bu ndaw nag nee na ko je le battrai il n'y pourra rien dinaa ko daan mënu ci dara ak lu mu mën di def bu ñëwee bu xeexee dinaa ko daan suma ma dumaa dinaa ko daan lu mu mën di def dinaa ko daan même bu toogoon seen buntu kër sax fa laa koy fekk daan <laughs> mënu ci dara waaw kon nag d'après mots yooyu moom euh, mën nañoo mën nañoo lim benn affaire walla mën nañoo wax benn affaire ci combat boobu mooy tey ku ci mel ni Talfa Talfa buñ déggee ay waxam dañuy jàpp ne Talfa mi moom dafa yaakaar ni moo mën booy bi. waaw dinaa la duma dinaa la daan. mais kële nag moom dafa yaakaar ne moom moo dàq bëre ki naan ko ak lu mën di xew dama lay daan. waaw kooku moom yaakaar na ne moom moo moom moo dàq bëre. en tout cas combat ngi noonu bëre la ak xeex la lu ci nekk euh, mbër war na koo mën a def pour mën a am victoire ci bile komba mais daal li la des mooy. Euh, làmb ji seen bëri na ay surprise waaw bëri na ay surprise en tout daal ñaan yu ci war a bëri yal na yàlla def ngeen ñëw ba ne runkum tase rek loolu rek mooy wax ji nga xam lu waaye woon wax fu mu fu mu jógee waaw journée Production samedi Aboy expédie Thiatou Montagne en cinquante cinq secondes en seulement cinquante cinq secondes Baax Eh, a surpris Thiatou Montagne face Dakaru en l'envoyant à terre. à l'arène nationale lors d'un gala de lutte avec frappe organisé par le de Bawal Production. waaw nee nañ avant affrontement bi caatu Montagne ak Aboy ku nekk yaa ngi taxawoon ci palmarès su sept combats six victoires benn défaite ñoom ñaar ñëpp bi ñu jógee ci affrontement bi. Aboy Caatu Montagne mu ngi àgg ci huit combats sept victoire benn défaite Caatu Montagne moom mu ngi toll ci huit combats six victoire de défaites loolu moom moo nekk taxawaay bi parce que ñoom ñaar dañoo bokkoon dañoo yemoon palmarès ku nekk six victoire benn défaite nga amoon léegi dañoo ne woon ku ci daan di nga am huit victoire mais conserver sa benn défaite ku ci daanu di nga am euh, sept vict di nga am six victoire conserver sa benn défaite. sa con euh, am beneen défaite boobu muy ñaari défaite léegi nag combat boobu seen li ñu fa gis mooy xam nga sànq maa ngi lay wax naan làmb yi dafa bëri surprise. man nag du ma ne euh, duma bokk ci naa ci ñi naan euh, diw respecté wul mbër diw c'est que combat dañu koy préparer combat dañu koy dañu koy dañu koy analyser bu fekkee da nga préparer sa combat ba wóolu sa bopp ci doole ci entraînement ci lépp nga dox sa combat ba wóolu sa bopp ci mystique ak ci lépp du tee boo ñëwee dafa am lu ñuy wax réalité di terrain bu arbitre di souffler avant arbitre di siffler bu ngeen commencé def seeni cummikaay yooyu yëpp dafa war a am une concentration boo xam ne nii moom moo war a am sa diggante ak sa adversaire concentration bu lay permettre nga jàngat angle yëpp bu arbitre siffler aussi nga jël sa temps pour mën a consommer sa combat pour mën a analyser combat bi xool ban stratégie nga koy bëree mais li ñu gis keroog diggante caatu montagne ak aboy mooy caatu montagne euh, du ma ne respecté wul adversaire am mais xamutoon combat bi fan la fan la fan fan la fan la toll ci moom ndax boo amee adversaire quel que soit alpha même bu dee koon adversaire bi diggante baabooy la euh, wala diggante bombardier la ak seen mii bombardier bu ñëwee war na mën a am benn benn benn doute ci adversaire donte day am confiance totale mais il faut mu am benn doute mooy kii de ñépp ne nañ maa ko mën booy bi su ma dof doloo ba mu daan ma fan laa jëm loolu mooy waaw loolu mooy nekk analyse u bombardier mais nag waxuma ne caatu montagne moo mën aboy ñoom ñaar ay naataangoo lañ ay xale lañ ay moroom lañu mais caatu montagne li mu defoon ci xelam indaale ko mooy kii du ma taxaw moom maa ko mën dama koy fekk fa mu nekk duma ko daan ko en cinquante cinq secondes loolu moo lay wan ne combat bi amut round d'observation al bi dafa siffler rek mu dox ci kawam léewtoo léewtoo bu bar weccoo ay coups mu ñu jàppante xale bi takk ndigg li ba mu dëgër mu bitter ñu ko mu tëdd daan ko jël bu rëy donc loolu euh, défaut la ci ci ci mbëri des fois bu ñu amee benn benn benn portion de confiance bi rek bu ñu ñëwee dañuy bëgg a wane carrément ne kii maa ko mën maa ko ëpp doole wala maa ko nangam wala maa ko nangam alors que làmb dafa laaj nga xool sa adversaire dafa laaj nga def ndànk dafa laaj li nga ëppalee sa adversaire li nga jàpp ne loolu nga ko mëne boo ñëwee nga def ndànk ba jot jotti jour boobu loolu moo nekkoon grand combat bi aboy bu kaay baax ak caatu montagne aboy daan caatu eh, montagne combat préliminaire bi booy jobaas moo doon bëree combat spécial Euh, moom moo daan booy mooy daan Baye Ndiaga bu yëmbal mbooloo par décision arbitre parce que Baye Ndiaga euh, dafa dañu ko dañ ko dañ ko dañ ko dafa blessé ci ay coups yoo xam ne jël na ko ci komba bi euh, fils de fàllaay bu Kër masaar mbooloo ak Boursine bu Bawol ñoom ñaar dañoo def match nul Baye Waly bu Kaay Baax dafa daan Paul Maurice bu Mansour mbay caw Star bu mbaam ba dafa daan Dofu Diaz ko bu Mansour mbay dafa daan Caatu Jaxaay bu booy Sey jànkalaar bu Kër Masaar dafa daan ndongoloo bu Dakar Plateau caatu kolobaan dafa daan brisli bu géejawaay euh, ceeb bu xonq dafa daan garmi 2 euh, bébé solo dafa daan euh, saabawal par décision arbitre donc loolu moom moo amoon le samedi foofe ca arène national ci diggante aboy ak kooku di caatu caatu montagne cette suba si dimanche 11 décembre 2022 ñu grand combat diggante kii di Zambala ak booy Faye Boy Faye n'y a vu que du feu Zambala nee na duma na ko daan na ko la structure Jam Production de Jamaïcain organisée hier dimanche 11 décembre à l'arène nationale euh, sa première journée de la saison Zambala beaucoup plus fort que Boy Faye l'a roué de coups avant de le battre à plate couture. ñu ngi lay ziar bu baax Ibrahima bienvenue. welcome lay jaajëfal bu baax a baax welcome. naka la ñu ngi sant bu baax alhamdulilah Zambala ak euh, booy fay démb la woon ci arène nationale mais seen lutte avec frappe du lutte simple de. lutte avec frappe. du lutte simple waaw. parce que lutte avec frappe euh, mbër mi ay loxoom lay bëree mais opposition bi muy def yëpp yaramam lay lay lay lay lay indi comme opposition maanaam euh, mbër mi lépp lu mu lay xañ ci làmb rek yaramam la la koy xañee da ngeen di jàppante mu ndengeñ da ngeen di bëre mu lay xañ jàpp yooyu yëpp yaramam la koy defee alors que bu ñu demee ci lutte avec frappe bi foofu ñemewoo opposé woo ak sa yaram parce que lutte avec frappe la boo ko jé boo ko jéemee def rek di nga jël ay coups yoo xam ne nii saa day yàq sa làmb te démb gis nañ yenn jëli yoo xamante nii booy fay jëli na ko ci combat bi exemple mënoon na sax ñu dóor ko mu daanu. waaw parce que mbër boo jëlee coup ak coup bi nu mu mën di toll ak force coup bi nu mën di toll boo jëlee coup da nga war a am temps wu bu fekkee ne sa adversaire mu ngi dox jëm ci yow mu ngi lay xool mu ngi lay gis da nga war a reculer wala nga doxee latéral mais bu fekkee ne da jël coup sa adversaire di la xool di la gis ba pare nga bëgg a attaquer si waat bëgg a jàpp si da ngay gën a sonal sa bopp parce que ki ngay jàpp mu ngi lay gis muy jàkkaarloog yow. mu ngi noonu moom laay wax. waaw parce que boo jëlee ku. boo jëlee ku li ci ëpp des fois doo doo doo doo xam fi nga nekk doo mën a taxaw. te démb presque loolu lu mel noonu la ñu gis. booy fay am lu ko bett nag ci combat bi. am lu ko bett ci combat bi. ndax euh, digganteem ak Zambala ñu bari dañoo yaakaaroon ne dañu ñëw arbitre ñu bëree jàppante bëri bëri bu neex ndax ay mbërëm bappat lañ alors que. xale yi bu ñu ñëwee ci lutte sans frappe dañuy wone seen mën a bëri mais bu ñu demee ci lutte avec frappe dañuy bëgg avertir yeneen adversaires yi nga xam ne ñu ngi toog di leen xaar naan bëri boppat yi mënuñoo dóor moo tax dañuy ñëw dañuy xeex xeex bu metti te Zambala démb gis nañ ko fa te combat bi mën naa ne waroon naa mën a jeex ci biir làmb ji parce que am na benn instant quatre appui am na. loolu nag yéen ñemewu leen koo wax. Ah, ah non damaa xam ne ñemewu leen koo wax rek. Ah. yéen reporter yi man du ma reporteru làmb man damay toog ne la à di observer. man ah. de wax ah, am na ne. 4 appui moom am na moom. am na te bi enchaînement coup yi bëree arbitre dafa waroon na àtte. àtte jox Zambala victoire parce que. foofu foofu mu boof rek moom booy Faye mënoon na faa jël ay coups yu yàq saison oh, kon comme nga perte benn combat moo gën nga perte saison. te am na fu kuy tolloon vraiment arbitre daa waroon a tàqale ñaari mbëri jox Zambala victoire. ma ne tuutee tax ma ma dugg si kii Adam àtte. waaw alors que noonu la mujj demee sax parce que bi ñu paree bi arbitre àttee ñu war a bërewaat booy fa mënut a bëre parce que dafa blessé mais booy Faye même bu blessé wutoon man dama jàpp ne war mënut a bërewaat. ak même bu blessé wut mënut a bërewaat. parce que bu ñëwaatoon ci làmb ji it lu gën a piir loolu moom mooy amaat adversaire am xas na ko yeb ba pare. te fa mu tegoon loxoom fa la koy teg dootu ko teggi. wax naa ko neex naa amul fenn. waaw donc loolu moom moo amoon démb ci combat yi nga xam ne jàm production moom moo ko organisé woon. Euh, amoon na beneen combat spécial bu ñu doon xaar diggante Kalso ak euh, wulli wulliwaat mais d'après li promoteur bi wax mooy wulli dafa dugal médical dafa euh, malade moo tax combat boobu mujjul am léegi nag combat préliminaire yam bisaan bu Samba Diaw moom moo daan booy jaxaw bu benn barak Modou Anta 2 bu Balla gay moo daan euh, teq jël bu parcelle mbës bu Bosco Sow moo daan njaga oro ngóor bu Tiwaawoon Pël moo daan bàcc junior doomu séréer bu Songaan Gueye moo daan Forza 2 bu Balla Gaye booy fisel bu kaay baax moo daan lakkantaan bu Malika Mbooloo xarañ bu ndaw bu Kër Masaar moo daan Abdou Gueye bu Fàllaay Balde booy waalu junior bu ñàkku rab moo daan booy waalu de bu Tiwaawoon Pël loolu moo nekkoon combat préliminaire yi foofu ci sa ca arène nationale euh, malheureusement làmb ji ci dàqoon mujjul am. mais Calcio gis ngeen ko mu ñëw ba bàkko. loolu gis na. Hmm. mais kooku man maa toogoon benn place. ok. léegi gis nga ko booy pire Paul Darou pour le janvier. serré en renfort des Arco Ada Fass booy pire Waalo Paul Darou def Soga. nekk est scellé par le promoteur Pape Abdou Fall pour étouffer le choc euh, pour étoffer le mhm. choc des bad boys entre Ada Fass Fass Benno et Zarko Grand Yoff Mbooloo di dimanche 15 janvier 2023 ah mooy doon combat spécial bi voilà. normalement normalement moo war a nekk combat spécial bi euh, moo war a nekk euh, combat bi ñu war a bëri en levée de rideau le 15 janvier ci la Zarko ak Ada Fass di jàkkaarloo foofee ci arène nationale mu nekk combat yoo xam ne nii Paf production moom moo ko tëgg Pape Abdou Fall euh, ànd ceeg ñoom euh, fàllu Ndiaye ñu ciy jàpp bu baax booy piir pël bu daaru bile combat moom la ñu jàpp ne moom la ñuy indi en levée de rideau euh, parce que ba léegi dégguñu benn combat boo xam ne ni moom la ñuy jàpp comme combat spécial ci bile grand combat bu mag en tout cas daal comme ficelé nañu combat bi njort nañ ne bii moom mooy nekk combat spécial bi waaw. lutte simple vainqueur à Sadio Ga et Fatick Sox Soxo Sox Sox. Sox Sox. Sox Sox. waaw. Sox ah, Sox. et Modou Diam Terry se signale si un seul gala était au programme le week-end à Dakar à l'intérieur du pays des jeunes à l'image de Papo Ngane dit Sox-Sox et Modou Diamtéry se sont signalés à Fatick et à Sadioga. waaw euh, dégg nga journal bi li ma ne la ay ay mbër yu bare bare bari yoo xam ne ni ñoom ñoo présent woon ca Fatick. ordinateur Ngan Seck Kalmu Ndour Ibou Senghor 2 Abdou Tine alias Usine Technique Bungu Njaan Famara Sarr alias Fambouda euh, ñoom ñëpp ñu ngi woon ci gala bi nga xam ne moo doon am ca Fatick mais Modou Diamthiéry le jeune champion de Pointe Sarène moom moo créé la sensation. Euh, moom moo surprendre Ibou Senghor 2 en finale ñoom ñaar ñoo daan Nokia ak mon bu Fatick en demi-finale Ndourène ak Tataguine Radiakhé ak Feu ñoom ñoo ko jël mais fii ci Adrien Senghor benn gala rek moom moo fi amoon wala benn gala moo amoon rek ci week bi ci Adrien Senghor ci Dakar benn gala moo fi amoon à part loolu euh, yeneen gala yëpp ñu ngi woon ci biir ci su ci biir ci biir réew mi Papa Ngane moo def réussir moo moo def exploit euh, ci kaw ordinateur en quart de finale Pape Maroon en demi-finale Bandi 40 ans moo dominé Mame Ndour bu mbasis en demi-finale Euh, Papa Ngane moom moo remporté aussi gala bi ñu organisé woon foofee ca Palado le vendredi dernier ci kaw guy gi bu Ngañik donc euh, jël na vendredi bi jël dimanche bi kooku mooy Papa Ngane ñu gën koo xam ci soox soox non non ordinateur laalut ordinateur dañ ko disque dañ koo dañ koo daan en quart de finale. acca dafa mel ni loolu moo gën a fës si yéenekaay bi di sunu euh, ban ban lañ nekk sax tey te le 12 décembre 2022. waaw tey mooy le 12 décembre loolu moo nekkoon waaw décembre baa ngi dem loolu moo nekkoon li gën a fës euh, Boy Niang 2 Balla Gaye un regroupement fermé ñoom ñu ngi préparer seen combat bu baax a baax a baax waaw ñu ngi préparer seen. waaw diplex diplex la woon euh, am na combat bu ñuy soufflé fii moom suñu fidèle internaute bi Ibrahima Diba mu ne Balla Gaye 2 mu si forme cent pour cent mais Boy Niang 2 est très intelligent kooku mu ngi noote intelligence su Boy Niang 2 à l'endroit de Balla Gaye mhm. en tout cas le premier janvier lépp dina leer te yegsi na li ñu doon waaj ay weer léegi ay. ay jours lay ah, ay ay jours moo ci des. kon seen ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp di joxaan ñëpp rendez-vous ba suba incha allah même heure fii ci wasaare lamb. ok jërëjëf di jaajëf bu baax a baax boobu internet ci wasaare lamb di leen jox liggéeyam ba suba incha allah jërë ngeen jëf.